aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaara eh, di leen ndokkeel bu baax nag di wax ni ngeen di wuy di abonné rek te woy gën di partage vidéo yi incha allah ñu ngi leen koy diggee bis bu set rek ak ay njariñ yu am solo yoo xamante ni day sonal nit ñi lool mel ni jamono bii nag day bëri ñu doon ñaan ñi nga xam ni li olof di wax loxo bu bënn laxabu bën na ñu daan waxtaane démb sax ginaar ginaar giy boof ñun dañ ko ciy faj laxaw bi bën na ginaar giy boof dañ ko ciy faj incha allah bëri na nag mbokk koy laaj la xam naa ñu kon def ci ak leeral bu baax a baax wala bu bën na kon mooy ki nga xam day am xaalis waaye du toog xaalis balaa ñëw dafay fekk yitte yoo xamante ni da koy faj wala su ñëwee feeg jaayul xaalis bi rek du am jàmm wala day jaay xaalis bu noppi doo xam fan la ko féete loolu nag benn rab mën na koo def cat mën na koo def doomu aadama bi des fois tamit nit ki nit ñi seen bëgg-bëgg yi dafa romb seen wërsëg kon loolu tamit day sonal nit ki ndax bu sa wërsëg tolloo ci juróom nga am ngay nga bëri yitte saafara wala yitte fukki dërëm boobaa da ngay sonal sa bopp ndax li ëpp ci ñun dañ koy dax naan loxo bënn loxo bënn waaye fi ñu dugal suñ xaalis duñ ko mayee duñ ko sànq ñoo koy jaayal suñu bopp waaye nag am nay fàgguteef lu ci gaaw lool lu ci efficace lool ci garaaw ci lool ke aaya bu ñuy wax wa izaa ra'aw tijaaratan mi ngi sooti jumaati te jaxantal ba eh, mu ngi ci kaw ikra bi noonu aaya boobu képp koo xamante ne bind nga ko juróom ñaari yoon walla nga bind ko fukki yoon ak benn incha allahu taala nga def ko saafara fekk eh, jigéen bu yàkk cin ba xooñ ba teg walla nga sotti ca saafara si yëngal ko sottiwaat ko ci wat walla biron rek léegi def ca xorom ak suukar incha allah di ko raxasoo saa boo xëyee ak booy tëdd loo am léegi ma toog incha allahu léegi ma toog loo am léegi ma toog incha allah loolu moom lu ci garaaw garaaw la lu ñu échéant ay yooni yoon la tamit incha allahu taala bu garaaw lool la ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen ndokkeel di jéggalu bu baax a baax macha allah di ñaan borom bi defar ñu jàmm ak teraanga barke alxuraanul karim barke seexul xadim